salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhanaka laa xilma lana illa ma xalamtana mbokki internet yi nga xam ne nooy topp Wadduha TV seen mbokk Alxaji Madu Sise moo leen di nuyu di len di siyaara di leen di ñaanal waaye di sàkku seen Kota tabarakala di nuyu tey siyaara mbokki internet yeb yi nga xamne ñu ngi top site bi macha allah xam nu émission rek inshallah allah du ñak nu jël ñaar wala ñet mbokk siara leen abdoulay Diaw euh, macha allah Sadi Diaw itali ak sunu re sëñ dam Lay itali ñoom it nu ngi leen di nuyu di leen di siara di leen di ñaanal mu melni ki tey nu ngi ñëw ak yéen si benn kayfiyaat boo xam ne lenn la si secret ya latif ismullahi latif nga xam ne macha allah yéene nañ si kàttanu yàlla ñëw si ay émission yu am ama am solo mais den si ñëw yoon boo xam ne yoonu lu nit di xëccu lu mel na xeetu concours wala xeetu examen wala foo xam ne bi macha allah dugal nga fa say mbir say dossier te bëgg nga am fa résultat si kattanu yàlla bu jëlee yoon bi nga xam ne si secret ismullahi latif la yàlla dana ko si defal ndam sa la mu doon xëccu wala la mu doon ñoddi fa tabarakallah wala la mu doon yuutu macha allah lu mu si mën a doon lépp luy yittee jamono rek fa tabarakallah yàlla mën na ko see dimbale mooy day def ismullahi latif mille cent soixante et un muy tolloog neuf latif ndax latif cent vingt neuf boo ko multiplié par neuf daf lay jox mille cent soixante un moom lay def si yaa latif su pare mu def fatihatul kitab cent vingt neuf cent vingt neuf fatihatul kitab mooy alhamdulillah ba saar bi jeex su pare mu def suratul ixlaas soixante six سورة الإخلاص قل هو الله أحد بمجيخ سوبر اسم الله يال اسم جلال الله مدفكو ست ميل فوا تمو يا الله يا الله يا الله يا الله بمي ست ميل فوا سوبر كم من فئة خليلة قلبت فئة كثيرة بإسم الله والله مع الصابرين مدفكو 313 313 مم لا يدفسي سلاد بوك moom lay def si aaya boobu kam min fiatin qalila xalabat fiatin kasira bi isnillah walaha maha sabirin mu def ko 313 su paree mu julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 92 fois fa tabarakallah lii nii ma wax moom lay def ñetti fan su dee mbir mu tar la lool tamit mu def ko ñetti fan bët bu sa ñetti yoon lii yoon la boo xam ne képp ku si woo yàlla yàlla suñu borom dana la si wuyu kon xaddiyal nañ ko moom it macha allah mbokk yi internet yëpp yi nga xam ne nu ngi teewlu Wadduha TV ismullahi latif ngay def mille cent soixante et un soo pare nga def fatihatul kitab cent vingt neuf soo pare nga def suratul ikhlas soixante six soo pare nga def ya allah sept mille fois سوبر كم من فئة خليلة خلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين nga def ko 313 soo paree nga julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam 92 su ko defee nga def sa ñaan nii ngay def macha allah ñetti fan su fekkee lu tar la lool macha allah ñetti fan yi soo ko mënee nga def ko bët bu set ñetti yoon. lépp loo si dogg si kàttun yàlla suñu borom dana la si wuyu kon looloo nekkoon tey macha allah li nu doon parta ak yéen lu si jub nu sante ko yàlla jala jalaaluhu lu si safaanu nu ngi koy jéggalu seen mbokk la alxaji Modou Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu alhamdulillah